leen di yëgalaat nag benn xibaar démb ñun ñëpp gis nañu ñu taal oto ki nga xam ne moom mooy Cheikh baara njaay euh, ay Samba la yoo xam ne ils ont été recrutés par Amadou Sall jot nañ ci ay sources yu sûres Amadou Sall moo yëkkati ay Samba boy démb pour ñu dem taali oto Cheikh baara Ndiaye amadu Sall mu Macky Sall moom moo yëkkati ay Samba boy démb ñu dem dali fiinga nga xamne mom moy auto oto Cheikh bara jay dañ ko xaar nee nañu ci buntu kërëm ba mu ñibisi ba mu dugg ci biir kër gi bay oto bi ci buntu kër gi ñu taal ko voilà donc Amadou Sall mom moy ki nga xamne mom mo jité jiite gang bobu senegal tay ñun ñep man nañu d'accord ne bu fekke amna lo xamne ragné nañ ko ci xamnañ ne senegal légui dekk cartel la manam ben groupe bandi moo fa nekk di jéem a noot benn askan boo xam ne dañoo diñ kenn